Mm-hmm. ñoom bañ leen woowee jox leen seen tonnage dañ ne lii mosuñ ko jot bañ dalee jël seko ba léegi. mosuñ na jot tonnage bu tol nii ay trois kilos deux kilo cinq kilos lañ doon jox. ku ci mel ne par exemple. voilà béyti ngere deux bi. béyti ngere deux defe naa daaw. voilà amuñu sax juróomi kilo amuñ juróomi kilo ren am nañ fukki saako yu manqué tuuti. nga xam ne huit personnes yi. ci nekk daanaka da nga am cent kilos yooyu ci sa tool. te ku nekk boo xool ay juróomi kilo fukki kilo nga doon voilà tey suba maa ngi doon traité kaawu Fass Touré boo xoolee Fass Touré anamu Fass Touré foog naa warta sori fii euh, Fass Touré mm. Fass Touré liste bi gudd na quoi. mais boo Touré ñoom boo xoolee ñeneen deux tonnes lañ leen jot ren ba ma defee seen calcul mm. daanaka am nañ cinq tonnes cinq cent te deux tonnes lañ daan jot dañ daan jot deux tonnes trois tonnes ba ma defee seen calcul ñoom nee nañ hmm. euh, deux tonnes trois tonnes lañ doon jot waaye lii moom gulet ñu doo ko jot muy cinq tonnes cinq cent. Hmm. donc boo xoolee cinq tonnes cinq cent boo doon ko calculer en question de sac day doon cent dix sacs. ba ma ko calculer nañ ma jox si liste bi daanaka ku ci nekk am nga cent kilo yooyu ji tamit. Hmm. waaw te cent kilos yooyu chef du bi si jëm boppam bu demee ba koy séddale mun na see joué di xool koo xamante ni moo gën a ëppale tool mu xool. Hmm. lu koy jox mu bañ a toll koo xamante ni amul tool bu rëy ak yooyu. donc voilà en modo liggéey bi nga xamante ni commission ren bi nga xam ne sous préfet teg na ko en place avec mon vice président ki est le commandant. de la brigade ñoo ko liggéey ensemble mm. donc c' signé par le président de la commission en par le vice président mooy mooy le commandant donc mm. liggéey bi traçabilité la am en plus képp koo xam ne tam jox leen la gerte nga koy jaay ci buntu seko bi mm. yoon bu la jàppee da lay téye ah, te dinañ la jàppee amul kenn amul sañu jaay ko bu la jàppee mun leen la jàppee corruption mun leen la jàppee jël alalu askan boo moomul di ko jaay dañuy wax ne gerte gi ku ko dañuy ñëw vérifier sa tool ndax ji nga ko war a ji ndax loolu am na boo gisee les chefs de village ils sont payés chaque mois dañuy dañuy jël seen xaalis ils son responsabilité mhm. donc bu ñu leen waxee ne tànnal leen béykat yi ñu mhm. tànnal ñu koo xam ne du béykat ëllëg ci biir ministre war na fee ñëw wala SDDR jógee Kébémer na ma mbow nan dem nga ñuy seet tel village ñu xool jiw ba nañ ko jiyee foofu ndax nu tolle mel naan na wala naanul wala socce di sonal na leen wala gàncax gi am na problème donc bu tànnee benn tour si liste yi nga xamante jox nañ leen jiw ñu ñëw foofu fekkuñ fekkuñ fa dara mm. de ce indi problème te chef village mun mën nañ ko jàpp ba mu yegg ci borom tool ah, responsabilité chef de village bi ak jox jiw bi yëpp la la ñuy téye enquête ba xam jiw ba bañ leen ko joxe ñoom fan leen ko def ndax dañ ko jiw dañ kaa jaay dañ lañ ko dimbalee subventionnel li ñu la subventionné moom moo ko tant que jiwoo boo ko jiwee rek nga ko doo ko moom parce que lu la état subventionné mooy lu jar téeméer mu wàññi la ko fayal la ñeent fukki yow nga fay trois cent yi moo moo ko état dalaa dimbale mais dimbale da ciy fekk loxo borom tant que mu la ko jox jëfandikoo ko moomoo goo ko mais boo ko jiyee si ko suuf ba koy bay yaa ko moom sa alal la bu meññee boo ko jaayee yaa moom mais mm-hmm. li ñu bañ mooy ñu jox la si jiw génne goo seko bi nga koy jaay ay baana baana ñu koy yóbbuwaat faneen wala ñu koy def loo xam ne loolu nekkutoon objectif bu gouvernement bi ñun loolu gi R2 bu ñu jot dafa set wecc mm. xarit yi bëriwul niveau écrémé bi rek moom écrémé boo ko déggee sa veut dire que ne dina am dina am ay mais rek noonu mais bu ñu ko tànnee je pense que ne euh, daaw mm-hmm. euh, an yëpp moom la ñu ji te béykat yi ñu ngi si gis seen bopp voilà mu mel na itam seko bi gerte rek moo ñëwagul wala am na ñebe am ak yeneen pour l'instant war nañ jot loolu yëpp ngay wax mais gerte rek lañ jotagum mu toll ci poids bu toll ci cinquante mille kilo mooy cinquante tonnes yi actuellement ñu ngi xaar camion engrais bi mu may woo nee mu ngi dugg daaru marnaan moo waral ma ñëw toog nii ci buntu seko bi di ko xaar di xaar engrais bi danaa au commandant avec les membres de la commission ñu déchargé ko xam ko lépp nu mu toll bu mm. soobee yàlla noonu lañ fas def liggéey bi te noonu lañ koy defee ba jaajëf kon kooku ñu jàkkaarloo loon mooy Mbaw jiite commission bi nga xamante fii ne comme ni nga ko waxee fii ci Daaru Marnaan ñoom ñoo yore wàllum séddaleem gerte gi Mbaw nag def ci liggéey bu am solo bu transparent nga xamante fii ne comme ni mu ko defee nii chef de village bu nekk la nga bind ci ay tur nam toll mu andiwaat ko fii leeral ko nga xamante fii ne la ñuy jox chef de village bi itam ci nombre de kilo da koy bind yow mi dëkk nekk sa kër te bind woon ci benn chef de boo bëggee xam sa chef de village ndax dalaa nax wala naxu la ñaata kilo la jot boo ñëwee ci seko bi da nga fi fekk turu chef de village bi ak nombre de kilo yi nga xam ne moom la ñu ko jox fii ci seko bi su boobaa yow da nga mën a def sa calcul ba xam exact ndax liñ la jox yaayoo nga ko wala yooyoo ko ak chef de village bi ñaata la jot ci kilo ak fan la ko jaarale loolu yëpp dana leer kon tey ren jii moom mel na ne wax dëgg yàlla transparence am na fii ci Daara Marnaan Cheikh Awa Balla Mbacké jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi fii ci daar Marnaan Seexu Balla ci seko bi nga xamante si ne moom mooy séddale wàllum jiw wi comme ni ngeen ko xamee instant bi nag ñoo ngi toog di xaar uh, li nga xam ne mooy engrais bi ndax gerte gi moom moo ngi ci ngeen gis transparence bi nga moo am fii ci Daaru Marnaan kayit bi ngeen di gis mooy turu chef de village yëpp yi nga xam ne jox nañu leen gerte fii ci Daaru Marnaan Cheikh Awa Balla ku ci nekk ñaata kilo nga am ak euh, chef de village bi turam ak yëppam dañ ko ciy def nga gis itam li nga xam ne moom moo wàcc ci Daaru Marnaan muy cinquante mille tonnes yi gis ngeen ko noonu muy loo xamante si ne dafay leer naññ boo jëlee chef de village bu ci nekk li ñu ko jox boo ko multiplier da ngay am exactement cinquante mille tonnes yi nga xamante si ne moom la ñu wàcce fii ci dëkk bi nga xam ne benn kilo rëccul dem fenn liggéey bu am solo boobu nag ki ko doon liggéey moom la ñu jàkkaarlool nii muy mbaaw nga xam ne moom moo yore wàllum gerte gi ak séddale gi fii ci Daaru Marnaan ñu bàyyi leen ak mbaaw mu indi ay explication ci ren naka la séddalem jiwu bi amee par rapport ak yi nga xamante si ne daan na am noo jàngate jàngatee mbaaw lan nga ci gis ci coppite. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waa daaru Marnane man la monsieur mbaw chef de poste vétérinaire bu daaru Marnane am même temps doon le président euh, de la commission de distribution des intrants agricoles pour l' année deux mille vingt quatre ici à Darou Marnane euh, sous préfet moo ñu jox ndombal tànk boobu pour wàllum séddale jiw bi ren rek dafa nekk une année particulière boo xamante ni euh, njiit yu bees yi ñoom ñoo ko sàkku ci wàllu agri wàllu wàllu semence yi. donc boo xoolee ren Daaru Marnaan jot na lu toll ak cinquante cinquante tonnes gerte cinquante tonnes gerte yooyu nii la demee quarante tonnes euh, gerte écrémé ak dix tonnes gerte euh, niveau R2 donc ñaari qualité gerte yooyu lañ ci lañ ci jot prix yi bu nekkee ne quarante tonnes euh, écrémé yi boobu prix bi mu ngi jar quatre cent cinquante bu nekkee ne dix tonnes Euh, niveau r bi ci gerte bi moom tamit mu ngi jar quatre cent soixante donc ñaari prix yooyu lañ jot ci seko bi donc ñun nag bañ jotee bataaxal yi ak kayit yi nga xam ne moo jóge ci kaw ak instruction yi ñu jot suñu su préfet yi dañuy daal di appliquer li nga xamante ni moom lañ tëgg ci loolu moom la ñu sant ci ay kayit commission bi rek mu ngi fi man maay président bi commandant mooy euh, euh, commandant Diop la chef de brigade mooy sama pré mooy sama vice président moom leen toftal ci man ñu war a war a saytu liggéey bi am nañ ay membre rek comme lu mel ni monsieur le maire moom membre la lu mel ni le président des chefs de village comme Ali Dieng wala yooyu wala ñooyu ay membres lañ en même temps am na association yoo xamante ni ay membres lañ yoo xam ne ñu ngi ci ñu ci ñu ci SECO mm-hmm. donc bañ jotee cinquante tonnes yi ñun lu ñu njëkk a def mooy on a organisé des réunions des rencontres avec euh, la commission avec euh, tous les chefs de village de la commune mm-hmm. bàyyiwuñ ci benn les tous les cinquante chefs de village yi nekk ci Darmanin ñoom ñëpp oo nañ leen waxtaan ak ñoom ci débat wax leen lan mooy am ci seko bi ak yan soppite moo ci am ndax dañuy wax ne gerte gi nañ ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo koy bay te doot njëkk ba dañ leen topp kër kër di ko séddale comme kuy séddale loo xamante ni dañuy dimbale askan wi mm-hmm. mais ren dañ ne dañ koy jox les agriculteurs koo xam ne bu ñu ko joxee dana ko suul ci biir suuf si mm-hmm. kooku lañ koy jox de ce Euh, les sous-préfets ont instruit les chefs de village de recenser tous les agriculteurs yi nekk seen village ñoom ba ñu recenser mooy genre kayit bi ngeen di gis comme chef de village bi ni mu ko defee tudd euh, village bi tudd Beyti Ngara de chef de village bi tudd Ram Ram Diop moom ba mu recenser euh, il a recensé lu tollook ay huit huit agriculteurs te bu njëkk ba moom village am bu ñu doon joxe gerte daanaka day tànn lu toll ak nit village bi jox leen ko te yelleewuñ gerte bi donc voilà la ñun on a fait une, une répartition boo xamante ni on a on a sur les imposables de la les imposables du village mm-hmm. les imposables mooy lan village bu nekk am na recensement officiel national bu ñu defoon village bu ne xam ne ñaati nit moo fa mais si nit ña fa nekk si lay mën a sukkandiku mën a séddale gerte gi mm-hmm. mais après ça ñi nga xamante ni set village yi tànn leen la ñu leer na ñii moom ala kulli dañu dañuy ji gerte gi ren mm-hmm. ñooñu lañ koy jox de ce fait rek ñun bañ jëlee cinquante tonnes yi cinquante tonnes yi lañ jël diviser ko avec les cinquante villages yi fi nekk moo ñu jox résultat yi donc résultat yi comme ni ngeen ko gisee euh, premier mu yéen a gis béy te bëri béy avec cent dix neuf imposable mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkkam maintenant poids bu war a mun a am mu ngi toll si six cent cinquante cinq kilogrammes boo ko calculer tey jii daanaka tonne bi ay trois sacs wala quatre sacs moo koy manqué. Mm-hmm. alhamdulilah ndax li bañ ko defee. Mm-hmm. topp liggéey bi ba mu jeex. Mm-hmm. cinquante tonnes yi dafay yem jeex amul benn maire amul benn conseil amul benn chef de village amul benn membre de la commission bu ñu jox benn doomu gerte pour neexalee de village yi ko jox leeral ko ci ay biir ko sous préfet les préfets avec ñoom ñëpp yëg nañ ko. donc comme niñ ko defee nii. ñoom bañ leen woowee jox leen seen tonnage dañ ne lii mosuñ ko jot. bañ dalee jël seko ba léegi mosuñ na jot tonnage bu toll nii ay trois kilo deux kilo cinq kilos lañ doon jox ku ci mel ne par exemple voilà béyti ngere deux bi béyti ngere deux defe naa daaw amuñu sax juróomi kilo amuñ juróomi kilo ren boo xoolee am neen fukki saako